léegi Ablaye Diop xaas yaakaar naa ni Lac de Guiers est-ce nitam la du nitam daal. lu tax non du nitam ndax lii nga xamante ni mujj na ko dafa doon lu mu waroon a njëkkee. lan lii mu mujjee. est-ce que Ablaye Diop Khass yëgoon na. ko. est-ce que yëgoon na problème bi. bu fekkee nitam la yëgoon na ko. non dama ne est ma ne bu fekkee nitam la yëgoon na ko. mais Assane sa nit du léppam mm, nga yëg de. non hmm? bu fekkee nitam la yëgoon na ko. ayca bismillah bu nitam la yëgoon na ko. Lac de Guiers coowam ak booy ñëpp a yëg nañ ko rajo yëpp ko revue de presse ñaata yoon lañ ko indi fii Sénégal gépp yëg ko. mais Lac da ko weddi woon. nga ni da ko weddi woon dama ni bu doon nitam. Hmm. dana ko woo waxtaan ak moom bu doon nitam Lac de wax dëgg gi comme ni mu ko ko waxee tey. Hmm. bu boobaa dana ne ko naa woo booy yi sama kër wala ma sol sama daal seeti booy yi nam def noonu ba yóbbu fa booya mën nañ ko def mu wax ak booy ñu dox si tànk jàmm mu fay xaalis jàmbur mais munoo bàyyi ba nit ki ñu arrêté ko rek maam arrêté ko pour enquête ko seen yaram yi daw seen yaram ba mu waree daw daa yàggoon ba muy jël ba muy jël xaalis booy boobu la seen yaram waroon daw. kon nag ay nit bu ñu nekkantee il faut que ñuy waxante dëgg te bañ a nëbbante. kon nag laa de Guiers dañ ko arrêté ndeegun. pour mu delloo xaalisu jàmbur yi. Hmm. beneen bi ci communication bi réer naa si. ndax mu nit ni booyikat bi ñu taseenteeg Lac de Guiers ñoom ñëpp dañoo dañ ni bu amee combat sax bu daanoo dañuy jooy seen yaram dafa daw. kon mhm. bàyyi nañ. waaw waaw booyi bàyyi booyi bu fekkoon bàyyi nañ du leen permettre na bu amee combat bu bu amee combat fay leen. kon du leen ko permettre ndax boo bàyyee nit boo baalee moom baal nga rek. waaw nit ki nag munoo ni dama dama ko pelante pour mu fay ma ñu pelante ko nga daan wax yoon léegi bàyyi leen ko ba mu am combat fay ma. loolu moom ñoo nit ñi du demeewu doxewu noonu booy moom bu ñu génnoon. Ah, def loolu façon de parler la rek. man la booy yi bu ñu defoon discours duñu wax loolu. Hmm. mënut a nekk. jàppoo ne ko. waaw booy yi waxuñu loolu. bu amee